mooy chauffeur oto yi waxoon nañ ni tey dinañ grève et ça se voit actuellement toute la population amuñu oto problème oto yi ça se pose partout dans Dakar su ko defee ñu daal di dem jël euh, quelques impressions. salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam soxna va alhamdulilah mi ngi noonu tey nag euh, tey gis nañ problème de transport fii nga xamante ne mooy Dakar la ban jàngaat nga am ba ci loolo euh, problème de transport de mooy ça veut dire que nii dafay bokk ci loo xamante ci économie Sénégal parce que dem leen demalante bi ak dikkalante bi dafa taxaw donc day indi benn impact si dëkk bi boo xamante ni nii mooy loolu kenn du dem kenn du dikk en quelque sorte léegi nag loolu moom kenn souhaité wu ko jusque je pense que ni état du Sénégal war na ci waroon na ci mën a jël ay précautions bien avant que ñuy ñuy àgg ci ci ci stade bi. parce que transport moom mooy doxal réew franchement parlant pour dire vrai parce que tey boo xoolee la majeure partie de la population mënuñu liggéey donc kon ça veut dire que ni économie bi taxaw na et loolu c'est déplorable franchement e j'aimerais bien que qu'il trouve des solutions pour que ñu er, ñu ñu jéem a trouver solution par rapport vis-à-vis à ça parce que transport moom mooy lépp mooy lépp dëkk donc voilà ok Euh, selon toi yan solution la population bi noonu la état boobu noonu nga xamante ne ñoo ñoo ñu jiite ban genre solution lañ mën a apporter te loolu nga xamante ne mooy euh, chauffeur yi. pour man dañu war a dem jege transporteurs yi xam lan mooy seen ay problème parce que en quelque sorte man je pense bien que ni le prix du carburant est élevé donc voilà donc loolu rek impact la boo xamante ni ñoom war nañ ci mën a trouver solution ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni nii. parce que je je pas trop la situation mais juste que ñoom ñoom war nañu mën a dem sur le terrain pour essayer de trouver la pour essayer de de voir ce qui ce qui se passe réellement. Euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, voilà tonton dañ la bëggoon interpeller rek ci loolu nga xamante ne mooy boobu le nga xam ni tey chauffeurs yi jublu nañ ci donte. prévenir nañ lu yàgg mais gis nañ ni grève boobu am na fi impact bu bu bu yaatoo yaatoo yaatu ban jàngaat ngeen am bi ngeen ci def. waaw bon jàngat bi ñu am ci grève bi euh, lu métti la ci population bi mais d'une part aussi a ah, loo xam ne les chauffeurs yi aussi euh, dañu sonn ndax ñoom vraiment dañu évoquer problème yu bare. Euh, wax nañu tracasser policiers yi vis-à-vis jo yi ñuy jokkante ñoom ci circulation bi xëy na am na yoo xam ni chauffeur bi moo nekkul ci yoon am na it boo xam ne bi it peut-être homme de tenue bi aussi il a failli sa mission bon mooy waral ah ñoom ñoo xool affaire bi ne vraiment sonn nañu mënatuñ ko dund bi ci mooy carburant bi aussi cher na cheraay boo xam ne bii ah vraiment dañuy léegi ba wàcc daanaka lii day dem ci carburant lii dem ci ñëpp xam nañu ko corruption corruption bi moom mu ngi fi kooku moom kenn du ko werante parce que soit policier bi moo xam policier bi moo xam gendarme bi mu arrêté la ah yaa xam yaa tooñ yaa xam moom moo wax moo wax souvent selon nu mu nu mu la bëggee accuser eh, léegi pour nga génn ci ñaar mu attesté la nga bàyyi sa liggéey dem dem brigade retirer sa permis après sinon nga préféré def corruption yëkkati am lu ngeen lu ngeen d'accord nga jox ko mu dem nga dem waaw boo nekkee koo xam ne kii aussi arrangé ko nga préféré mu bindal la après nga dem fay mais ñeneen ñeneen wax ne balaa maa dem commissariat wala brigade dafa fay ay 3000 wala ay 6000 man ma te waa ji bu ma ko joxee 1000 francs wala mil mu bàyyi ma je préfère ma jox ko ma dem sama yoon ma bañ a perdre suma temps waaw. loolu nag transporteurs yi nag syndicats yi transporteurs yi ak chauffeurs yi ñu jooy ko jooy ko jooy ko syndicats yi nag jog ne nag loolu vraiment nag dafa war a dak parce que métti na métti goo xam ne gi yow nga yor oto xëy di daw ba ngoon boo xewee sax dépense sa kër du du am lii nga jëndee essence lii nga dem fee ñu jàpp nga joxe deux francs 2000 1000 francs mil suba ba jënta sow donc finalement da ngay ñibbi les mains vides alors ñooñu ñooñu loolu vraiment métti na ak yeneen yoo xam ni ay sarta yoo xam ni ñoo am nguur gi waxoon nañu ko pour que mu jàppale leen ñu dig leen ñoo ne diggee yooyu gisaguñ ci dara alors l' ensemble de tous ces nag ñoom ñoo ne nag ñoom li ñu gis mooy arrêté ba affaire bi faju bu fajuwulee it ñoom ñoo xam ne ne ni ñuy def loolu moom c' est leur droit ndax itam ku sonn na yuuxu population bi itam ils sont parce que ñoom ñu ngi nii tey ñëpp ku ci ne yaa ngi bëgg a xëy liggéey mënoo liggéey amoo lu lay yóbbu xale yi war a jàngi demuñu jàngi amul oto bu leen di yóbbu donc xam nga ne kooku aussi nekk na loo xam ne lii métti na te population bi finalement dañu ne wax ne ah, ah, ah, naka la ko wolof Njaay moo ne moo ne naka xaw ma naka olof yi di wax de ne ay duy yem ci bopp borom fii mu ne nii affaire bi grève bi laal na population bi parce que population bi nga xam ne ñoom du ñu état du ñu dara seen yoon nekku ci mais laal na leen parce que kon nag yaa ngi bëgg a liggéey mënul liggéey sa doom mu ngi war a jàngi mënul jàngi ndax amul fu muy dugg loolu itam métti na état bi nag moom mooy arbitre moo war a taxaw jàkkaarloog ñooñu boo dee ñooñu ils sont dans le droit mu fekki leen ci ñu régler problème bi mu jeex ba dee nekkuñu seen droit it mu nekku leen seen droit ñu ñu faye daal ñu tiire affaire bi mu fin ñëpp nekk ci jàmm parce que lii pertement total la ci réew mi pertement total ni l'État ni la population ni les transporteurs ni les chauffeurs ñëpp bokk perte tey waaw loolu moom vraiment métti na no mais transporteur bi bon syndicat transporteur yi li ñu wax li ñu wax nañu ko nee nañu état bi point yi ñu leen tegal bu ñu rek le ñoom tout de suite mais tey tey tey tey grève bi mën naa jeex mais nag bu ñu amul gain de cause ñoom wax nañu ni ce matin rek nee nañu mën nañ dem ba un mois donc maintenant état moo war na nag léegi nag jog atte yëf yi mu leer parce que il est le seul le seul à à la situation waaw. maa ngi lay nuyu. waaw maa lay sant maa lay nuyu yow tamit di nuyu sa gars yi gars yi nga ànd yëpp. mi noonu tey daal euh, observé nañ loolu nga xamante ne mooy grève grève boobule mooy euh, chauffeur yi donte prévenir nañ ne woon nañ ni grève dina am mais gis nañ ko gis nañ ni affaire yi bi touché na bu baax a baax population. waaw touché na gars yi quoi parce que am na ñoo xam ne tamit xam nga yéeg ci tata wala yéeg ci taxi mooy leen gënal xam nga parce que am ñoo xam ne ñemewuñ moto yi xam nga mais tey fallait que yi jël moto yi yéeg ci moto yi quoi parce que xam nga soo amul soo wayee xëy dem liggéey ville amoo oto nooy def di ngay obligé jël xam nga moto yi yéeg si xam benn instant tamit xam nga ñun gis nañ suñu bopp quoi tey moom gëm naa ne tey daal mooy dina cool quoi. au calme pour yéen di càq-càq daal ça va tey. tey au calme kay tey moom ça marche bien moom moom ah sant yàlla quoi man loolu laa gis. am ak ci yeneen jours yi soo koy comparé ak yeneen jours yi tey moom ah, tout te prêt quoi tey moom lépp dina cool quoi. mais yan solution ngeen mën a proposer loolu nga xamante ne mooy état bi pour seen mbokk chauffeurs yi ak. Euh, passagers yi jàppale leen rek ñu jàppale leen parce que ñoom tamit xam nga ci ñun lañ bokk képp kuy dawa ñoo bokk télé bi quoi. parce que ñoom xam naa am na lu ñu gis ba xam ne tey dawaluñ moo tax moo war a grève ñu seen taxi. te xam nga loolu yoon am nañu gars yi seen taxi te seen yaakaar dépense affaire yooyu may ñaan nguur gi rek mu jàppale leen xam mooy loolu noonu mu jàppale leen si lu leen métti koi xam nga parce que tamit pourquoi pas ñun suba tamit mu nuyoo grève ñun cag-cag maan yi am na ñu métti ñun tamit ñu grève ah sans dépend rek waaw moo tax kon damay ñaan nguur gi mu jàppale suñ mbokk sëfo yi rek te yàlla rek tax mu jàppale leen luñ bëgg mu defal leen ko moo gën parce que benn normalement parce que man damay jee taxi des fois du muy dawal sama moto damay jël taxi parce que mooy gën a gaaw quoi des fois ma jël taxi nekk à l'aise xam nga pas ma dawal ni nekk ci télé bi di xam nga dawal yombul yow xam nga loolu dawal xam nga risque yu fi nekk dafa bëri quoi yàlla moo lay dimbale rek mais maa ngi ñaan nguur gi daal mu jàppale suñu mbokku taximaan yi rek mooy loolu noonu quoi. mais yéen tey càq-càq maa ni lu tax jàppoo leen ci boobu grève nga xamante ne chauffeur yi tey def nañ non xam nga ñun nag mënuñ tey jàpp quoi parce benn instant tamit xam nga tey nii exemple ñun tey suñu grève woon ñun cag-cag maa nii xam nga dana leen taxi duñ grève quoi dañu taw mais xam nga ku nekk sa jour quoi tey xam naa yàlla moo dogal mu nekk jour taxi maa nii ñu grève moo tax. daal yéen a ngi ciy profité bu baax. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi daal di xool tamit mais je pense tamit tey dina cool quoi ça kay sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi sant sa groupement bi nga àndal nekk nañ si jaamu yéen jaamu ngeen am de incha allah.